ay ville ci biir ville dama ne dañu bëgg créer alaaji mhm. ville bu yoof ville Guédiawaye ñaata ñaata ñaata ñaata commune dafa ne du juróom. cinq waaw dëgg la. waaw ville Pikine fukk ak juróom-benn. waaw léegi ville yoof. ville yoof. bëgg nañ fa dugal gën a gàtt juróom-benn juróom-benn wala juróom-ñaari commune ville yoof lañu bëgg a créer créer tamit ville Grand Dakar. ville yoof pour xam nga loolu boo defee analyse logique pour logique maanaam seen coow li dox si diggante Ablaye Diouf Sarr ak Amadou Ba bëgg nañ ko liggéente alaaji politiquement jaaree ko ci décentralisation ak ay réforme bu ko defee kenn du mer bu ko defee non seulement kenn du mer ba tax ñu jàpp da ngaa def ko ni yéet def ko ni yéet non defal ndànk au moment où ñoom bëggu nañ bëgg nañ liggéente seen problème Diouf Sarr ak Amadou Ba ña ngay séparé Khalifa sàll ak Barthélémy Dias pour dootuñ bokk te lil dootuñu bokk lis duñ ko liste bu yeboon ak lii may wax na ci nit ñi bàyyi xel te bu ko fi benn journal temps yi bindee moom journal diw bu mbetti kenn ville bu yoof alaaji hmm. dañ fa bëgg a dugal Mermoz Barthélemy Dias ne ak Ngor ak Almadi <laughs> ak Sacré Cœur ak Wakam déglul de alaaji dégg ville bu Grand Dakar alaaji nguur gi dañ fa bëgg a dugal Parcelles asseni Derklé Colobane Médina plateau Patte d'Oie Grand Yoff ak biscuiterie. mais yow yow Parcelles Assainies sax ak biscuiterie daa sori. waa léegi lan moo tax jëluñu. <laughs> waa léegi alaaji lu tax jëluñu Parcelles Assainies alaaji. alaaji loo jëluñu parcelle. waaw dugal ko Yoff. te parcelle ak Yoff ak Cambérène taxaloo. Ah, parce que mooy kii wu mooy kii wu. parce que Amadou Ba. parcelle la boo ko dugalee ci biir yoof moo ko Abdoulaye Diouf Sarr ba léegi ni la xeex ba dafay ne. <laughs> dégg ñu ne coppet parcelle. tëbale ko ay commune yu dul jeex daw yóbbu ko biir Ndakaaru Ndiaye Gueye Diop. parcelle bàyyee Yoff dem bokki Grand Dakar. ah incohérence. alaaj déglu ma expliqué alaaj Padois fii ci ville bu Grand Dakar. déglu ma expliqué la de déglul de léegi ville bu Grand Dakar. wax na non bu Yoff. Ah, ñu jël Yoff waxuma ñu mboot de. non Mermoz la boot. Mermoz. Ngor. waaw Almadi. waaw Sacré Cœur ak Wakam. Mermoz yoon. ati village. ma expliqué la ati ma ne. xale Khalifa sàll ñëpp xam nañ ne. turam a ngi ci liste Grand Yoff ya ñu boole ko ak Amadou Ba. non seulement ñu yóbbu Barthélemy Diaz fële ca ville bu Yoff mooy maire moo Sacré-Cœur Ouakam Almadies dégg nga loolu. xaw ma ndax yéen a ngi xam fi may waxee. bu baax règlement politique la. danañ liggéeyante problème te gis nga lii. lii dem leen archive ngeen xooli seen jotaay bi ma mujjee def alaaji ak euh, Pape gi Ndong waaw Pape Gorgui Ndong wax nay wax ba ma ne ko yéen seen lii ngeen di def nii est-ce que du ay affaire politique mm-hmm. mu ne ma Chérif ñun bu ñu ci naroon dugal politique mm-hmm. mais dañuy génne grand grand yoo fi Khalifa Sall nekk mm-hmm. ne fa coppet génnee ko ville bu bu Dakar sàkkal ko pexe dugal ko fu ñu neex wax na ma ko ci biir wax xam nga liñ naan naari ndaw yi li ñuy wax te xayma ba nañ ko ca mbaar ma ville de Yoff ville de Guédiawaye daa am njaareem Limaamulaay Gunaas Sam Notaire Golf Sud ak Wakhinane Nimzatt léegi ñu ne ville bu yoof day am Mermoz Sacré-Cœur Ouakam Ngor ak Almadies léegi ville bu Grand Dakar day am Parcelles Assainies am Derklé mooy ñoom Cheikh gi am Colobane am Médina ñoom Bamba Fall am plateau ñoom Alioune Ndoye am Patte d'Oie gii sëñ bi jóob ne ak Grand Yoff bii geneen sëñ bi jóob ne ak Biscuiterie fañ dem si àll nga nekkoon président ñaari tali fi mu ne dégg nga mm-hmm. yee ñuy wax ne dañ koy supprimer yooyu nag pour l'instant mm-hmm. tegagum nañ ko ci suuf mm-hmm. mu nooy mais ndakaaru moom ala kulli aalin danañ koy sàkk pexe dañ koy sàkk Amadou Ba du leen rëcc Diouf Sarr du leen rëcc te Barthélemy Dias daneen def seen kéemtalaay kattan ba du bokk ak xaaf liste mooy la xewoon Géejawaay rek xam nga la nekk ca côté estade boobu ñu ne Jidda Thiaroye Kaw la bokk nga wàllum politique rek a ko lal de ah, <laughs> te biir biir territoire départemental bu Géejawaay la ne waaw Géejawaay sax moom ay mbiram moom daa yàggatul ndax da da noonu ko lijjante ndax gone moom dañoo màgg. kon politiciens yi dañoo yàgg ci. non non non tracé tracé waat pour dugal ay. commune non génn la xeet googu noonu. non non fee moom léegi nag Cambérène alaaj trop <laughs> xaaral noppi sax kii mi ngi naan yaa ngi toj dil bi xaaral ma noppi xaaral ma noppi walaay. voilà Cheikh Mara. voilà cant gi kon dimanche la alaaji euh, Khalil Alé Ndiaye maa ngi koy siyaar ak ñoom Badjo. Euh, voilà dégg nga loolu ak euh, Seynabou Ndiaye sama sama jigéen yaa ngi nii nag ak ñoom Juma ak ñoom Nday Anta yore ko Aziz Alla Ndiaye lañ alaaji ñuy tey séddale ndokk gi moom incha allahu rabbi dimanche. dimanche lu moo fa jiitu waaw waaw mu fa. Cheikh Mara jantal Mara borom gileem gi Nour Taal de nee na ma gileem gi fees nga ko bu yàgg ba lekk ko te gileem ngaa nga taxaw. <laughs> la ilaha illallah. dégg loolu. Mm. lii daal mi ngi. li saa neex naan ko am doom mu ne séet doom ju xonk waaye ku def lii dilwa alaaji eh? li ma la wax nii nag na nga ci bàyyi xel. bu baax wuy ma te ne yem suñu diggante bu leen wax ne leen man maa la ko wax. Ah, yow Fadia fan la bokk fu dul ci géejawaay yi nga naan ay. Fadia Fadia laal géejawaay la bokk. <laughs> commune Golf Sud. waay yàlla dool li jàmm ci. amiin yaa lii nag jox naa leen information xalaat leen ci man nag dama di mag mënatumaa ne ci réew mi daw. di calculer. waaw kay dégg nga loolu yow foofu. waaw foofu nag laa yem. yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi yal na nu yàlla suturaal yal na nu yàlla jàppale yal na nu yàlla aarte yal na nu yàlla taxawu. waaw kay. Euh, Alaaji Simeer Diop moo nekkoon ci xarale gi nag euh, l'expert en décentralisation ngi nii toog Mamadou Fafana. <laughs> voilà miin màkk miin mel ne noonu mën a war a la ceddo dala ne Alaaji Mansour Diop moom laa dendal nii li ko sauvé nag sama xaritu ba sama xaritu maam <laughs>